Euh, ci ci euh, Amadou Ba laay ñëw. Amadou Ba moom c'est un cas particulier boo xam ne moom. Mhm. Euh, moom comme Sonko rek à tiroir la. tiroir boobu rek bare na mi ngi xaar ci suuf. parce que Amadou Ba mooy candidat majorité présidentielle annoncé woon nañu fi en grande pompe tournée économique am yooyu. Mhm. nga xam ne dañu ñu ñu dañ jàppoon ne moom a Sall ñoo ci waroon a ànd. pour président Macky Sall dooleel ko defaale ses réalisations annoncé waale tamit ne dina continuité bu bu Amadou Ba wax na moom lay doon mais surtout. Hmm. dooleel ko dëgëral ko. tournée boobu euh, non seulement président Macky Sall kenn séenu ko fa. Hmm. waaye mobilisation ba euh, ci yu bari dafa tagatémbe. Hmm. Euh, ñu bari jàpp ne sabotage ci suuf ndax dafa am ñu bari ñoo xam ne pour sauver seen boo dañuy ñëw masse nu ngi ne ànd nañu te fekk ànd nañu moo mobilisation euh, tournée mobilisation bi ñu bari japp nañu c'est pas ça ndax sabotage ci amaat tout ci euh wa responsable APR yu bari les grands dinosaures de la l'APR mm, mm. kenn gisu ñu mëna la mayo euh, ni publiquement ni en privé beneen bi mooy président Macky Sall ci bopam questionnement moy il semble quand même avoir lâché quelque peu Amadou Ba ndaxte euh, affiché tuwul fenn ak moom kii wutul ak moom lenn euh, sànni ko noonu muy dem euh, last nag last bi moom mooy yëfi Benno Assemblée yi bëgg demoo ñaay Benno Assemblée yi nga xam ne moo yor affaire xaw ma lan territoire ban affaire seen hmm. machin yooyu. dialogue des territoires commission nationale. voilà pour le dialogue des territoires. mais surtout ba noo nekk euh, un cacique du du parti bokk ci membre hmm. fondateur yi. Benoît Sambou moom moo fi lancé benn mouvement euh, euh, te mouvement ba ñu bëri jàpp nañ ne ñu ngi ñu ngi ruumalaat ne ku gën a doy waar ci APR gën a garaaw jamonoy Ablaye Wade nga xam ne kooku. ñu ñu xam ñëpp connaisseur ñëpp dañuy muslu ci moom moo nekk ci ginnaaw <laughs> sama paa bi moo nekk ci ginnaawam xanaa paa boobu moom foo ko sa dégg rek ñu ñu ko ñu xam ñëpp daw nañoo làq du yuuxu ak ak ak di di di di ut euh, cuuraay ñu paa Mahmoud Saleh <laughs> ñu ni paa Mahmoud Saleh moo làq ci ginnaaw bi ensemble Euh, donc yooyu yëpp nag xeetu xeetu xeer yii mm-hmm. ah, ak tamit beneen bi mooy parrainage bi nga xam ne mm-hmm. assemblée nationale député bennoo yi gis am na ñuy làqtu su den courtiser den courtiser courtiser bi sax dañoo rafetal waaye mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu proposé leen teg xaalis si table bi jënd seen seen bien sûr waaw ñu ñu ñu jeexalee bii laa la jox tu as cinq minutes ñu dëxañee la yooyu mooy parce que Amadou Ba kese bagage la waaw mooy xam nga sànq bi li ma li ma lay waxoon. Euh, xam nga politique toujours bul xool li politique di wax del xool li muy jëf. <laughs> dégg nga dëgg la naka ngay comprendre euh, biñ ne Amadou la war a tabbu. ñi bëri defoon fronde. de manière ouverte. am na ñoo xam ne assourdine. xam na ñu xeer ñu la ñëw ñëpp ànd nañ. loolu loolu soxna si mënul nekk de. gis nga politique toujours day def histoire. mi ngi mel ci configuration bi président Abdou Diouf tànnee Ousmane Tanor Dieng. ñu bëri jàpp ne moom mooy dofem. Mhm. bon ci perception. Mhm. Djibo bi muy yëngal. xam nga moo am fitu yëngal. moo am moo am fitam moom. mais ñu bëri boobu dañoo déggoo nag moom ci bu Djibo Ka bàyyee ñu bàyyi. après dañoo mhm. jiital Djibo Ka trahir ko. mais gis nga bii Abdou Diouf demee ba perdre pouvoir bi. ñoom ñëpp ñoo dem bàyyi kii nu mu tuddati bàyyi Tanor Dieng ci saa si parce que mosuñ ko digérer tant que Abdou mi ngi fi. dañ koy jéem a muñaale. waaw xam nga parce que pour bañ a perdre seen avantage ak yooyu ak privilège mm-hmm. mais bis bi Abdou Diouf demee rek la ñu bàyyi Tanor Dieng Ousmane mm-hmm. Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm du noonu mm-hmm. ba fii tamit loolu mun na amaat parce que xam nga ñaar dafa am légitimiste yi dafa am toujours waaw c'est normal quoi loolu nit la bon comme mel ni waa Samb bu nekkoon APR depuis le départ bon moom formation kii la militant pur la sax parce que jëf na jëf jëlëk xeexkat la quoi formation yam jaar yëpp boo xoolee début wu Macky Sall moo daan dem genre porte parole sax di dem au front. Mm. ay années 2008 2009 si mm. on se souvient. Mm. ba li bizarre mooy keroog da doon lancer mouvement. moom turu Amadou Ba sax tudd ko. tudd ko fa. ba pare il critique. waaw carrément waaw mouvance présidentielle bi. ah bon nee na daal war ngeen jublu ci soxla Sénégalais yi ak yooyu noonu. parce que yéen ak opposition bi yëpp bu leen. waaye léegi xam nga lu ma jaaxal. moom malgré waxam jooju. yëpp. Euh, paa bee di wax ne ci kii di quoi di waaj a moom bi mu ko defee. moom bi mu ko defee dañ ko dàq. mu doon bi Macky Sall ne jaar leen gauche mu jaar droite daf ko dàq. wala et cetera et cetera képp ku Macky Sall signalé gauche nga jaar droite da lay dàq. Mm. léegi bon waa moom mi ngi am commission mi ngi yor ba tey commission nationale du dialogue des territoires. Mm. Ah, léegi dañu xaar xool fu wàññeeku di mujj ak yu gëtam. Mm. waaye daal xam naa ne man. Euh, mbiri Amadou Ba daal. dafa bëri ay bizarreries yoo xam ne nii. daf ko daf ko daf ko tënkaale dafa ànd ak moom. seetlu woon daal benn manière rek. ñu bëri ñi nga xam ne ay vieux compagnons de Macky Sall lañ ay mm-hmm. anciens déggatoo leen mm-hmm. seetlu nga loolu mm-hmm. déggatoo leen et que tournée économique yi mu doon def nii waaw boo man ci beneen tribune alerté woon naa ne am na ay risques <laughs> gis nga 2009 dëgg la waaw ci configuration bi la doon waxee Karim Wade ak na tournée économique yi président Abdoulaye doon def mais waa PDS ñoo ko saboté boobu bu baax sax wala ba fii nag benn anam la dafa mel ni fii dafa mel ni dañ ko boycotté sabotage bi dafa décliné ci mode boycott waaw même journaux yi nga daan gis sax ñi jàppale Amadou Ba bii yoon ñi ciy wax sax bëriwul. moom nga fi doon dafa ne. waaw dafa ne Amadou Ba daal. waaw Amadou Ba daal. Euh, gannaaw fi moom jàmm rek lañ ko yéene. Mm. mais war na gën a def effort. waaw des na lu bëree bëri dafa des lu bëree bëri quoi. waaw fu war a góorgóorlu fu mu weeru quoi. waaw dafa des lu bëri nag. waaw des na quoi. bon peut-être euh, lu mu sóor quoi il va mm. apporter des actions collectives. Ah, on espère on espère si ce n'est pas trop mais instant yi nag li naan cin bu noree neex bu baxee xeeñ. Euh, il faut non non non neexagul Alors.